bismillah barke borom Touba alaykum wa rahmatullah no ngi len di nuyu bu baax te di len ziyara di len balu ak tay bal ñi papa gannaaw loolu yi seen naafila guddik tay di guddik ñaar fukkeel gi ak ñaar ci wéru koor serigne Souhaïbou mbake neena ku ci julli ñaari rakan rakan bu ci ne nga jang fatiha ben yoon jang sabbi jeex yoon jang inna anzalnau basaru jeex ñetti yoon jàng xul huwallaahu ahad ba saar yu jeex ñetti yoon jàng xul a'uudu bi rabbil falaq ba saar jeex ñetti yoon jàng xul a'uudu bi rabbin naasi ba saar jeex ñetti yoon nee na ku def loolu yàlla dana ko tabaxal ci àjjana juróom-ñaar fukki dëkk yoo xam ne dëkk bu ci nekk junniy njénne dana ci nekk maanaam junniy pale dana ci nekk te njénne lu ci nekk junniy néeg dana ca nekk néeg yoo xam ne wurus ak xaalis lay doon néeg bu ci nekk junniy lal dana ca nekk lal bu ci nekk junniy soxna dana ca nekk yàlla nanu ko yàlla mën loo te nu def ko te def ko nam ko taamoo te mu nangul nu ko te fulal nu ko te làqal ñu ko fu yàq yëgul barkeb Cheikhul Xadim fi daari